dañ créé benn tali kër gi nga xam ne xale jaraaf ji amee fan yi si ginnaaw weesu suñu yaay bi nga xam ne si la génnee àdduna ak suñu mbokk taalibe bi Moustapha Ndiaye ñu ngi fii si benn tali di kanam Cheikh Mouhamadou Ba Ndiaye di leen wax nag ne su ngeen gisee ñu dugal vidéo bi jàmm la ak salaam ndax ginnaaw ay jàmm alhamdulilah ñu sant yàlla di gërëm ay dogalam di gërëm tamit ay acteurs si moom ñu tegee nag waaye nag di leeral waa Sénégal ak mbokk jullit yi mbokk àdduna bi li waral jëye bi tamit mënuñ ko woon xam ndax ñëpp ñu ngi woon si tiis waaye ginnaaw bu mu paasee dañoo génne war gaz bi ak bég bi gis ci loo xam ne daf ñoo jaaxal gaz bi mu ngi nii su ngeen seetloo gaz baa ngi nii ñu ngi ko jënd jour boobu noonu ba jëye bi am affaire bi am ay vingt trois heures et demi presque loo xam ne nag mosuñ ko gis si gaz leen gis ndax bu ngeen seetloo gaz boo koy wala ngay divisé toujours da ngay gis ne beg bi moo war a ñëw boo koy seere nii beg bi ngay seere boo desee tamit bég bi moo war a génn mais bii nag bul bi nga xam ne moo jàpp gaz bi moo génn kon li c'est pas normal défaut de fabrication la si waa Touba gaz ñi nga xam ne ñoom ñoo defar gaz bi ñu koy waxaat nag pour dimbale ñeneen ñi ndax mën na dal ku ne comme jullit jullit mooy mbokkam nag ñu ne woon nañ def vidéo bi fii si bentel lañ nekk ci kër gi fi mu xewee pour wan ko jullit yëpp. képp koo xam ne day jëfandikoo gaz ci këram bu bàyyi ci xel ñi nga xam ne ñoom ñoo defar gaz bi ñoo xam ne lii erreur dëgg la ci ñoom défaut de fabrication lañ def wóorul te baaxul ndax lii warul nekk yoon ñii la waroon def bëgg bi rek moo waroon génn ngeen ko seetloo képp ku desee rek gaz doo si bàyyi xel mais bii waa ji nga xam ne moom moom la dal muy Moustapha Ndiaye bu ko yaayam joxee ndigal mu koy génnee daf ko doon dem bu koy desee rek mu jàpp ne bëgg bi mooy génn fekk asbunallaahu wa ni'mal wakiil gis nga bul bi moo génnaale moo waral pax bi nii nii nag moo flammé jàpp courant bi ak na bi mu dendaloon mu lakk tafa lakkaale yaayam lii moo waraloon problème bi am fii si benn tali ñu tey pour leeral ko waa adduna bi yëpp rawatina waa Sénégal ak jullit yi ñu bàyyi ci xel képp ko am gaz ni koy vérifié donc bàyyi ci xel bu baax ñi nga xam ne ñoo defar gaz bi nañ si bàyyi à part d'aujourd'hui tey xel xool lii bu baax liñ defar mooy lan ma woon nañ ko leeral waa Sénégal ak jullit yi pour ñu xamee ko noonu jërë ngeen jëf